li nga xam ne moo ñu tiitaloon moo gënoon a nekk yitte inspection bi yàlla dogal moom lañ fi fekk ba fekk fi loo xam ne ni sax ëpp na suñu njort parce que li ñu ab Ablaye jox bu ñu ci jotee dinañu mën a régler suñuy problème ba denc ci loo xam ne nii mën naa am dañ koy bàyyi parce que comme kenn xamul kañ la mbas mi di jeex bu gënee yàgg aussi amatuñu dara lu ñuy tiit loolu nag ki ko def liñ ciy sant yàlla mooy dafa doon koo xam ne nii. nit la koo xam ne ni ñi président doon wax ñu impliqué moom bokku ci parce que moom du état du maire du président conseil départemental état joxu ko xaalis état lebalu ko xaalis dafa dëkk ci dëkk bi gëm dëkk bi jàpp ni dëkk bi bu ñu ko waree tabax ku ci nekk da ngaa war a defar mu defar mouvement am tudde ko ànd defar ànd boobu mu ànd ceeg ay nawleem ay xaritam ay mbokkam taxaw nag bëgg Tiwaawan lépp loo xam ne ni soxla am na fa lam ci man mu def ko bu dee social bi mi ngi ci bu dee santé bi mi ngi ci bu dee éducation bi mi ngi ci ba li mu indil tey jii département de Tivaouane mën naa wax ni moom mooy première personnalité privée bu ko indil l'IEF de Tivaouane ca fi mu ñu ko indilee dafa doon fañ ko gën a soxlaa moo tax Ablaye ñu ngi lay sant bu baax a baax au nom de l'IEF di la sant au nom de l'IA di la sant au nom du ministère de l'éducation nationale. ñu amaat mbégte ñëwaat encore fois ñëwaat Mboro. bu ma fi duggee léegi si école sama yaram dafa daw ndax man sama cycle primaire fii laa ko defee donc école bi tey mën naa ko dessiner sax même su ma fi ñëw par classe tey li ma fi gis yàlla def na xëy na gëj nañ fi mais bi ñu duggee dañuy njëkk a muy am yéene vraiment xool nañu mën a réhabiliter waat école bi ndax école dafa nekk symbole te yàlla def aussi tamit suñu cycle secondaire suñu cycle primaire yi fi lañ ko defee donc su ma nee ruq bële fële classe euh, classe bële foofu sem deux monsieur Sow moo fa nekkoon donc man foofu laa jaar donc ñu ñëwaat encore une fois de plus ñëw andi sunu soutien ci li nga xam ne tey mooy décision bi président jël ubbiwaat école yi gannaaw bi mu ko tëjee si li nga xam ne moo doon pour jàmm xale yi sécurité xale yi mu tëjoon école bi donc mu décidé waat nañu ubbi école pour sauver école bi mu bañ doon année blanche pour ñu war def examen donc président jël si décision ba pare boole ko ak ay mesures d' accompagnement yoo xam ne andi na ko donc si loolu ñun ñu jëloon initiative. defar lu toll ci seize mille masques bi ñu defaree seize mille masques yi ñu noonu dañ koy séddale entre Tivaouane mboor département bi yàlla def démb ma jokkoog le sous-préfet ma explique ko ni ko dat prévoir nañ yóbbu Mbor masque ak ay thermoflash peut-être sa quantité bi ñu prévoir mënoon na tollu woon ni mais ñu déglu ko mu wax ñu de Mboro problème bi am na fa problème boo xam ni surtout su école élémentaire yi loo mën def rek na nga leen jàppale bon, si lolu la décidé ak mom ñu jox la, la situation ñu andi ce quoi IF tiawon aussi ñu ni nañ andi au moins pour chaque élève 3 masques chaque enseignant 3 masques si lolu lañ andi pour euh, école élémentaire 3000 masques yo xamni parce que mom buñ calculer c'était 2000 et quelques mais dañ ko arrondi def ko 3000 1967 bon ñu bolé ko ay thermoflash yo xamni tay and nañ ci nombre 24 parce que mom le rek 5e la ko waxé 24 thermoflash mo nek ni benen bi aussi moy euh, lavoir yi nga xamni mo nañ andi

yo xamni ne am nañ ko carton bi nag mi ngi def 15 donc ñu jël 20 yi bàyyi ko pour école élémentaire jël 10 yi ñu yóbbu ko si collège lycée yi nek Mboro donc si lolu aussi bu ñu jógee fi aussi non la défé aussi ci ñaari. Euh, li ñaari CM ak euh, ki bu fi nek ak euh, lycée bi fi nek ñu aussi nañu yobul thermoflash yóbbu leen 2000 masques yóbbu leen aussi ay produits yi ak siw yi fi nek yépp ñu leen ko yobul aussi donc li may li ñi def aussi dama japp ni war na parent d'élève bu nek ndax ku wa école da ngay wax ay élèves ku wa élèves da nga wax parent d'élève ndax suñu doom ñoo ñu di jàngi donc xale yalla def na depuis bu école tëjee ba léegi ñu dëj ci biir kër yi benn xale génnatu donc bu yalla défé ni ñu ngi ubbiwaat école yi je pense que parent bu nek war nga mëna a taxawu sa doom ba buy dem ni muy génne si kër gi en sécurité buy ñëwee si mu dellu ci waat kër gi en sécurité donc bu état bi defee benn parent bi aussi na def benen keneen def benen xool loolu aussi c'est pour jëmale sa réew mi kanam comme ni wax toujours état bi mënul def lepp état li mu war def nako mais ñun aussi dañu war accompagner état bi accompagner le président de la République tax mom aussi tamit depuis bi euh, feebar bi commencé ba légui lépp lu mën mi koy def